وهم الأسى سلم ترى من نعمتي عمت بساء الأرض بالفيدان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الخائن في محكم التمثيل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الخلق بشيرا ونشيرا وداعيا إلى الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن اختفى آثارهم واهتدى بهديهم إلى أن يقوم الناس أمام رب العالمين mbokk yi nu seetaan mbokk yi nu toogal ni ngi jiital li wala jiitu te mooy nuyoo te mooy asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ñaan yàlla defal nu nuyoo làmb te mooy jàmm ak ma ak barke nu jiital ci nuyoo bi borom kër gi di suñu xarit suñu kóllëre alxaaji Demba Mbaalo ak njabootam gu tedd gii mu bokkal toog di nuyu alxaaji Habib Kébé bu alxaaji Mbër Kébé di nuyu alxaaji Nguuda Mbay bu xaraaj Njaase Mbay dañuy ubbi ñaan jox Habib wax nan ko li bëgg mu waxal nu ko mu waxal nu ko ginnaaw bu nu bokkee noonu ñëpp ñaan ci yàlla yàlla ñu tàmbale ak bismillahi rahmaani rahim eggale ak alhamdulillahi rabbil alamin ndam bu ci yàlla masaa def yàlla na ci biir raw lépp yemb lépp yéwén lépp yiw ànd ak tal ànd ak sago tabaarakalla te yàlla nangu ko mooy xew-xew boo xam ne nii xew-xewu islam bu mag la suñu mbokk di suñu lépp alxaaji dem mbaalu sos ko ci ndigalu sëriñam ci ndigalu kilifaam kóllëreem sëriñam moo ko mayoon muy def fii gàmm moom njaboot gim fi nekkal ba ñëw fi benn at ñu invité ma ma dem def fa waxtaan sëñ bi ne boole naa la kii nun Tiwaawan dañu bëgg a soy boole naa rek alaaji xalifa kee bu nekk seen bunt dem ba ne man sama bëgg-bëgg yépp mooy nga boole maag sëñ Abdul Asis Al Amin ma yóbbu ko ca sëñ Abdul Asis Al Amin jataay bi dafa xat moo tax ni ko ma wax ko li sëriñ bi wax boole koog Demba Demba ne alhamdulilahi rabbil alamin lii rek laa bëggoon fa tabaarakallahu waaye moom itam mu fonk ko lool dundal ko rafetal ko fab sa yi abdu teg ci kanamam boolewu koog lenn ginnaaw kilifaam fab njabootam gépp andi sëriñ abdu itam defal ko loo xam ne nii gisaguma ko mu ko defal ci Thiès dana fii ñëw di fi def ay conférence waaye ay daayira yu daje mu ñëw defal leen conférence waaye dem ba mbaalo di kilifa walaada yi ci Thiès sey Abdou ñew defal ko ñetti ad yu toftaloo ben bo nek conférence ta bu ci nek xat-xat la koy fekk waye lu mu ko fekk japp daf koy bayyi ñew teewe bi xew-xew bu nak mo del seti ci mbaxu yalla sey Abdou mo jàppoon bis bi yalla dogal fekki wuko yalla ko yalla dool leer fa mu tëdd ta taas ci barkem yeneem bim fi bayiwon ak bëgg-bëggam bim fi bayiwon yalla yàlla ko الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي نجلين نديو دلين بالو أخ دلين زيار دنيان يالا نانغو دي جيتل بي أي نيان يجمتي عبد العز الأمين رضي الله عنه ميغا خامني mooy boroom lii te ba léegi mooy boroom ndax mbokkam mu tedd mu baax mii ñu toogal di baayam ci nasab tabaarakallahu sëñ Abdou tam def ko sëriñ ci ruux moom it mu delloowaat ko sëriñ gi ci ruux muy suñu maam alxaaji xalifa kebe mu baax mii toog ñu ngi koy nuyu di yëkkati ay kàddu yu jëm jóge ci moom jóge ci al amin radiallahu anhu jóge ci xalif général des Tidiane suñu pap Serigne Mbaye Sy Mansour jóge ci njabootu Seydil Hadj Malick yëpp rawatina njabootu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin Serigne Babacar Sy taawam waaye Serigne Mouhamadul Moustapha mi ñu lépp teg ci loxoom ñu ñëw rek pour wax ci góor gu tedd gi di alxaaji Demba Mbaalo tabaarakallahu ñun ak alxaaji Nguuda Mbay mu melni limam khalifa wax rek la seigne Abdoul Aziz Al Amin mo jappone bis bi waaye bi mu jàppee bis bi itam jëmmam moko dul téwé waaye ruham dana ko téwé tay sax jëmmam dana ko téwé ndax ku bàyyi njabot bàyyi ko lo doy mi ngi fi muy mam khalifa mu jàpp ko le 30 juin mu tombé ak samedi le 30 juin nga xamné al hadji Demba mbalo yàlla moo ko jox cëru mu nangu kilifteef nangoo boot tamit ay njaboot muy bépp falaadu boo xam ne yaa ngi fii Cees ay kilifaam di bàyyi ko Tamba di bàyyi ko Kolda di bàyyi ko yépp ñëw ba ci ay mbokkam yi toog di ay magam yu góor ak yu jigéen muy ku baax nag koo xam ne bis bi muy wàcc dañuy ñaan mbooleem fu waay nekk ci àdduna ci Sénégal ci Thiès ak li ko wër nga xool jotaayu maam xalifa nga xam ne kon kii am na ndigal am na ci lépp muy bis bu ñu fonk nag bis boo xam ne dafa tombeek Serigne Abdoul Aziz si jàpp ko te nekku fi muy premier daje bi nga xam ne Haji Demba Mbaara defaat na ko ci ginnaaw loolu nag du bisu kenn ku dul bisu maam xalifa Kebe mii kon tabaarakallahu bépp famille bépp njaboot bu seetaan avant première bii na nga ko bàyyi xel muy le 30 juin kon ñu ngi woo ñëpp di ñaanal ñëpp coordination des jeunes Tidjane fédération Daïra Tidjane de Thiès Daïratul Muxtafina président Salif Ndiaye union des Daïra sëñ Babacar Sy Daïratul Moustarchidine bàyyiwuñu kër Serigne Touba bàyyiwuñu kër maam Limaamu bàyyiwuñu maam Cheikh Bou Kounta bàyyiwuñu Ibaadu Rahmaani bàyyiwuñu kenn na ñëpp ñëw fekke ko loolu lañ doon wax rek ci ndigalu maam xalifa ci ndigalu sëriñ Abdou le 30 juin ci kër alxaaji Demba Mbaalo nga xam ne xaaji Nguuda mooy yor animation bi maam xalifa Kebe ak xalifa bi ak waa kër sëriñ Abdou ñoo yor waxtaan bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim. assalamu aleykum musidɓe fulɓe on calminama on juurama ko addi ɗo ɗo nde jonde hande ɗo o galle alaji demba mbaalo ko ziyara bo noon waɗo hirade o hirade o noon ziyara hay goto accaka wona pullo tan ko addi ha mino haala e pulaar ko pour fulɓeɓe kala nana tawa gaccaka to ɓawo nde wonno ko mawɗo mo ganduɗa kilifa gonnoɗo tiwa won ɗum woni seigne abdoul asis al amin kan sincanno ɗum alaji demba e musidal muɗum e dayira muɗum ko ɗum noon ganduɗon si tawi o nani noddago ngo hay goto watno won to ɓawo joom arda he nedi arda he anniye anda ko barke heɓata ni ɗo saabu ko barke tan wonɗo e ñagude allah gilay alqur'ana o ha e kala ko gandanɗa hoore ma e moƴƴi he diine ko ɗum woni ko fewjaɗo ko ɗum waɗata heni ɗo hay goto noon accaka si on jiiɓe piyimɓe jooɗiɓe ɗo koko wowa waɗede hikka wottani hitade nayɓere nde ɗum noon hay goto accaka gandon ko balɗe capan tati ndu lewru ndu gonɗen wiyetendu mois de juin wiyano haala ka watno juuɗ ɗum noon mi salmini kala ɗo pullo woni hay goto accaka o nani haala ka o nani noddore nde hay goto wata no accu hoore muɗum accaka hay hunde no wayi wo no wayi kala no tiine wiiɗa he barke heko ɗaɓɓere to allah ko ɗum wonɗo ene jooɗoɗo yo e halifa mo ganduɗa ko kañum ittiɗo alaji demba nabi ɗum tiwawon ka e ɓesgure muɗum awa kadi e dayira muɗum o si on jiiwa mon jooɗi ɗo won haala ko kandi hannde wonani en ɗo ɓe tiwawon ɓe ɗum noon on jiimbo on jiidimo e dental on jiidimo e dental alhaji demba e musidɓe demba mbaalo watno on jeeji ñalaande ko balɗe capantari mois de juin ndu ndu gonɗen ko ɗum e 2018 e assalamu aleykum wa taala wa من ربي في ربه الحنان ما قال أحمد التجاني منشدا فإليك يمن محمد ناداني ما قال أحمد التجاني منشدا فإليك يمن محمد ناداني